yëpp tey te comme di ma ko waxee si nasaraan ma bamtu ko rapidement ni ko lu deer di wax nano crédit produit bu bees bi nga xamante ne dañ ko taxawal pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu si wàllum napp mi principalement mais bu soobee yàlla dinañ ko yaatal dugal neen acteurs yi artisans yi mécaniciens yi euh, comme ni ko doon euh, waa sketch bi waxee tailleurs yi cordonniers yi nano crédit bi mooy ndimbal njaboot mooy ni ko Fatou Niass di waxee jooni jooni dañ lay jox financement cinquante mille ba trois cent mille francs ak un pour cent de taux de cinq pour cent nga remboursé nga mun ko utiliser directement si sa xaalis mais aussi si sa porte-monnaie électronique ak suñu partenaires yu ñuy liggéey ñi ngi yëpp Wave Wizall ak euh, euh, Free ak InTouch loolu bu weesoo monsieur le maire comme ni ko fa Adja Fatou waxee ak directeur du marché central au poisson Abou Mbaye DER lu ko tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ni ko Jabel waxee dugal nañ lu ëpp presque dix milliards ci secteur de la pêche lii di camion frigo lii di pirogue en fibre de verre lii di lépp luy dem si wàllum euh, mareyage mais transformation hort euh, lépp luy dem si produit halieutique lépp luy dem si transformation produit halieutiques yi DER mu ngi koy doxal depuis bientôt trois ans tollu toll dix milliards dugal nañ ko ci secteur pêche bi dem nañu ci île di Saloumi Diofior Dionewar Djifer ñëw fii ci les quais de pêche Yoff Soumbédioune ñu ngi waaj a dem Yaraax Hann Ouakam Ngor pour jàppale nappkat yi jox leen financement wutal leen camion frigorifique wutal leen pirogue en fil de verre pour que ñu mën a napp si ay conditions yu wóor mën a dellu si ay conditions yu wóor jox leen ay gilet de sauvetage jox leen ay GPS jox leen fond de roulement jox leen camion frigo defal leen ay unité de transformation euh, de produits halieutiques mais it ay chambre froide ak usine de glace donc secteur peche comme ni ñu ko waxee gàcce ngaalaama yéen ngeen di liggéey yéen ngeen te bu soobee yàlla bu ñu continuer dinañ leen gën a jàppale Sénégal jëm kanam dakaar jëm kanam Yoff jëm kanam jërëjëf. créé ak ay partenaires am financement bi 10 mille francs lay commencé lu si en moyenne cinquante mille francs la ba cent mille francs cinq pour cent rek ngay fay et 1 pour cent bi dañ koy delloo euh, euh, fédération bi pour ñu mun si liggéey et instantané la. tey ak suñu partenaires yi Wave Free yëpp ak Wizall si bés bi mun nañu traité crédit bi mun nañu sax def démonstration tey léegi ngay laaj financement boo ñibbee si ngoon balaa ngaa tëdd nga jot sa financement le lendemain nga ñëw si kii bi jënd sa poisson jaay et soxlatul xaalis duñ la jox xaalis kayit doo gis xaalis ci téléphone bi lay nekk lépp luy lu ñuy wax digitalisation xaalis amatul kayit da ngay ñëw si tefes gi nga daje borom gaal bu teers nga ne ko ñaata laa lay fay 100000 wala 200000 nga ne ko jox ma sa numéro nga transférer ko mu dugal ko si téléphone mu dem yoonam kenn du leen agressé kenn du leen sàcc ku jël téléphone bi yóbbu ko sandi ko si dex bi nga dem feneen ut dox ut beneen téléphone nga am sa xaalis donc maa ngi leen di encouragé ngeen dugg si digitalisation bi fu leen neex nag defuma ma benn publicité nag. Ah. Weasel. Ah. yëpp. Free. mais les gars il va falloir que vous vous me payez la pub là. ak Intouch ak Orange Money mu ngi ñëw képp ku si am nga ñëw deer lebal la nga jël sa xaalis ba un million. mun nañ waaja ñu ngi xalaat sax dem ba 3 millions ba 5 millions liggéey remboursé affaire bi nag monsieur le maire fa laay jeexalee Yoff mbaa ñeme ngeen fay bor. mbaa di ngeen fay bor dégguma dara de ah deer boor fay la sant ku fay ah atte fay boo jëlee cinq cent mille nga fay nga am un million boo jëlee un million fay nga am deux millions boo jëlee trois millions fay nga am six millions waaye boo fayul hmm? <laughs> wasalaam